des euh, les les les petit-fils ça c'est c'est plus de cent 000 vous imaginez cet après-midi li ma am tey plus de cent mille personnes sans compter euh, maintenant les handicapés les sourds-muets nous reçoivent euh, dimanche après-midi donc ñëpp ñu ñu fàtte ñi ñu fàtte dugal naa leen man sama liste parce que yeneen liste yi il faut nga am xaalis pour dugg fa wala il faut nga yàgg si politique bi yàgg si parti bi nga duggal fa mais man dama ñëw dugal ñi nga xam ne dañ leen buntu xataal ma dugal leen si biir liste bi pour wane que affaire assemblée nationale affaire askan wi la te liste yi askan yi nañ fa war a ne. tey jii euh, nan ngay juger action Macky yi muy def mooy conseil ministériel yi muy yóbbu Ndar. oh c'est une très bonne chose mais en pleine en campagne électorale man dem su lu baax damay wax baax na. waaw lu bon ma ne ba bon na. c'est une excellente chose à condition de ne pas le faire. ci biir campagne lépp ci biir campagne législative ci campagne législative yi. man dama foog woon da koy une fois par euh, par mois bien au pire des cas une fois tous les 15 jours parce que quand même ça nécessite beaucoup de mobilisation et puis une campagne conseil des ministre décentralisé c'est bien à condition mm-hmm. que mu am lu mu jur ébauche de réalisation régionale. Mm-hmm. et cité des le fait ñu nekk foofu di louer dañuy créer des cités des ministres dañuy créer des du président de la république benn deuxième maison résidence secondaire c'est à Popenguine c'est l'occasion de créer des résidences treize autres résidences secondaires comme ça moom su demee du am problème fu mu dal ah. donc su amee gan sa yu jógee à l'étranger dina leen dalal su leen neexee mu dal leen à la résidence de Casamance, à la résidence de Thiès, etc. Parce qu'il faut quand même qu'on modernise notre pays euh, et les infrastructures ne doivent pas se limiter au, à mhm. Donc, euh, c'est une excellente chose su fekkee fépp fu mu dem problème yi fa nekk mu réglé ko dans tous les domaines santé mhm. hôpital bu fa teg mu ubbi ko su ko mënulee ubbi si saa si saa si saa si au moins ñu santé que dina dans un mois ou dans deux mois mhm. donc euh, euh, problème touriste bi mu réglé ko su tilimee ñu nettoyé bu mu set balaa muy egsi su fa ah loolu mooy problème donc mu continué di seet à Kaolack la ko defee je pense tey. Uh-huh. ils étaient à Kaolack. Uh-huh. maintenant waroon nañu euh, nettoyer régler le problème du nettoyage des ordures de de à Kaolack. Euh, régler bref tous les tous tous les problèmes doivent être réglés mu bañ a nekk ay promesses électorales en plein campagne électorale ñu ne moo di mi ngi liggéey de. moo di mi ngi liggéey de donc en trois trois semaines daf si ñaat ñetti conseil des ministres décentralisé pour ñu ne moo di mi ngi liggéey loolu taxul ñu jóg. Mm-hmm. voilà. voilà euh, léegi ñu ñëw ci audit yi audit yi moom d' nga ci audit yi. audit yi d' accord naa si à condition que mu dem jusqu'au bout ça sert à rien de faire des audits électoraliste pour di ah moo di mi ngi liggéey après de mujj fenn au moins nag mën nañ ko organiser de telle sorte su fekkee ciblé nañu nit un exemple ciblé nañu telle personne eh, déglu nañ ko xam nañu que dafa jël mais nañu jàllale approfondir enquête bi liñ koy aj na nga approfondir bi su fekkee xaalis bi dañ koy jël ko delloo si si dëkk bi mun na nekk solution ko na bañ a nekk solution na ngeen naxanteeg ne leen naxanteeg ñi ngi jël. ñu investir ñu delloo si. na ngeen naxanteeg ñoom rek affaire naxante rek mettre en confiance ku jël 12 milliards ñu nangu 10. ñu ñu ñu naxanteeg ñoom rek. naxanteeg ñoom fexe ba ñu delloo si investir au moins quelque chose ici. ñu mm-hmm. xam ne xaalis bi amoon li ñu jël mais investir su ñu. Mm-hmm. suñu tëñee suñu tëyee ba tëj nag rapp si kaso bi tëj soo koy daf rek ñu génn xaalis <laughs> ra tëj ci kaso bi rek ràpp si kaso bi teg soo ko defee ñu génn xaalis bi su fekkee jël nañu ah ndee la tey ji ak sa ma laaj tamit si oto yi oto defal ndànk fa laa jëm ay ca ci oto yi wax ma ci oto yi dama dama yaakaar ne gis nga Abdoulaye Wade milliards yi mu maye ak lu mu denc hmm. ak li mu am parce que mënut a pauvre hmm. bu ko kenn dugg si coowu wooto ndax du si dugg ndax dugg si campagne bi Abdoulaye Wade ñëpp xam nañu ko dafa yëwan ñëpp xam nañu ko côté xaalis di ko boole kenn ndax dafa doon maye may bu ëpp kon oto boo xam ne soo ko xëymaa motul milliard jaru coow ndax lu mu maye moo ëpp il faut pas que mu dugg dans cette dans cette dynamique su fekkee seen lieutenant ñu xeexal seen bopp bu mu si dugg man de man sama pap ku ko tuubaloon man maa koy xeexal yi te dina am ku ko mën a xeexal moom. maa koy xeexal li laa wax mu dañ fay wax fay wax bi sax fay ko si saa si du si dugg sax. ah nga nekk doom ju baax rek moo tax aussi. soo amee ay doom parce que amul benn doom donc Karim dong du doomam ñoom Ousmane Ngom ñoom ñëpp ay doomam lañu soo amee doom yoo xam ne mu mënuñu régler problème yi mënuñu fay coow te pa te papa ji dugg du jóg waxul ma xam ne kon doom yi donc des na daal. <laughs> des na daal ah. des na bu baax a baax a baax war na yow mu nekk ay avocat rek ñoo fa nekk nañ ko réglé discrètement te bu ñu sonal bu ñu tànkali kii waxu coowu coowu oto oto oto finalement loolu may tax Sénégal yi gëmoon élection da nga nar a découragé mm-hmm. bu ñu découragé loo nit yi nañu respecté nit yi seen coow wit wit yi ñu naa muñu wit wit ñu amoon charrette sax pour campagne dinaa sa boo xam ne dinaa jël charrette am naa si début léegi dinaa jël charrette Ndakaaru Ndiaye yëpp génne leen fang yéeg sa kaw campagne daf si ça va ça va être original bu ñu coowati ak ay 88. <laughs> ak i groupe électrogène jël batterie ne dañuy taal xaw ma daal su ñu defoon réglé woon problème énergie solaire. Mhm. dëkk village bi dam fekk fa courant. Mhm. comme bi ngi ne dañuy soxla seen i 4x4 pour éclairer village yi. Mhm. waaw léegi euh, Ndella Madior ñu ñëw ci assemblée national tey ji boo fu nekkoon assemblée fii ci assemblée nationale yenn rupture ngay indi si rapport exécutif ak législatif. ku si nekk noo def sans pression sans pression ku si nekk su defee liggéeyam doo doo doo woo benn benn procureur ne ko bon tegal ma diw tegal ma diw nee la da nga foog ne exécutif dina la bàyyi nga koy woo fii di ko band baraj mu bëgg a def benn projet de loi nga ne ko du fi oh chacun dans un régime parlementaire chacun fait son travail le premier ministre mooy nommé gouvernement ñu ne ñu ne instabilité la fi indi du fi indi benn instabilité ñi ko ñu gis ñu ñi ko bañ ah. loolu ñi yi bu nit di découragé Macky nee na dafa bëgg benn majorité pour gouverner aussi. mais loolu mënoo ko xañ. mais su ah, su fekkee dafa bëgg benn majorité exemple exemple su defoon régime parlementaire bëgg majorité benn supposons que majorité bi la moom amu ko exemple benn Bokk Yaakaar am majorité mais day gouverner parce que le premier ministre a issu de Benno Bokk Yaakaar quel est le problème. ah mais boobu loolu loolu loolu loolu du am régime parlementaire. comment ça loolu du am régime parlementaire. parce que Benno Bokk Yaakaar moom ñoo ma non non non je veux dire la majorité dans un régime parlementaire la majorité moom mooy nommé premier ministre le premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Mm -hmm. supposons que Benno Bokk Yaakaar am majorité. Non. un exemple laa joxe. mais loolu du cohabitation. supposons mu am ko mais su ko Moustapha Niass bi jiit bi bu jiite nu mu tudd sa kii. Euh, Benno Bokk Yaakaar moo nekk premier ministre. te bu boobaa moom mooy former gouvernement am su former gouvernement bi mooy tànn ministre mi proposé ko Macky Sall mais pas l' inverse da kii dans un dans un régime présidentiel c' est l' inverse. mais régime parlementaire amagu fi. mais nañ ko nañ ko nañ ko mettre en place. pourquoi. mais moom mais régime bi baax na régime présidentiel baaxul. c' est pas bon parce que c' est un régime présidentiel may li day day day day fal buur. day day permettre ku bugg a falu buur rek da ngay nekk buur facilement comme Abdoulaye Wade nu mu doon def régime présidentiel yow yaay nommé à tous les postes civils et militaires. Mm-hmm. kenn loo loo bëgg mooy am loolu Abdoulaye ça crée trop de dérives alors que régime parlementaire euh, c'est le peuple qui décide majorité bi moom mooy moom mooy moom mooy tànn premier ministre am. Mm-hmm. premier ministre tànn si seen biir en fonction des résultats des élections législatives gouverner. Mm-hmm. mais euh, ci loolu ci biir assemblée nationale bi yow yaa ngi wax fekk gis nga xeetu député yi ñu fi amoon duñu liggéey si. di fayee ko war il faut changer nouveau type de député. na léegi nan lañ koy réglé loolu. nouveau type de man de man personnellement depuis bar barki démb nee naa man maye naa sama salaire. sama salaire u député dama ko maye pour participer. si problème yow rek du yow rek yaa ko mën a réglé yow boo nekkee majorité nga am moo tax ma ñaax ñeneen ñi nga xam ne. Hmm. ñeneen ñi nga xam ne mënuñu maye lépp. na nga maye quart wala mu may joxe la moitié ñun am salaire député taxuñoo jóg régler problème askan bi moo ñu tax a jóg faire des propositions de loi modifier des lois Euh, des questions orales en cas de problème y a des problèmes de l'énergie convoquer ministre de l'énergie mu wax ñu lu tax moom problème d'énergie ak kañ la dëkk bi di leer donc euh, contrôler les budgets des niveaux euh, au niveau des ministères euh, loolu moo ñu tax a jóg loolu moo ñu tax a jóg donc mmh. moi de député pas ñoo xam dañu fi nekk di tàccu ak i fecc ak i xeex si góor yi góor yi ñoom dañuy xeex. Ah, jigéen ñi nag. jigéen ñi ñoom dañuy tàccu. non ah déedéet. wala di ah, waaw dañu doon ah, tàccu. amoon ngeen fay xeetu jigéen non dafa laaj. ñu pànk xam nga déet pas pànk ñoon ñu pànk xam nga pànk boo xam ne wax ju ñaaw rek. rafetul nga xam lool bëri na ci jigéen ñi. rafetul na deñ dina deñ parce que liste yi wax dëgg yàlla ay femmes de qualité ñu laa gis ñu nekk si liste yi te am naa si yaakaar bu mag a mag a mag que suñu demee quand par exemple man soo gisee Aïda Ndiaye Badaloo hmm. moom mi ngi nekk si beneen liste je pense des des des uh-huh. transport voilà donc euh, euh, on se parle tous les jours day participer sama émission chaque matin mm-hmm. parce que dama am émission le matin boo xam ne man candidate la boo xam damay animé di wax askan wi tous les jours dama am sama assemblée nationale radiophonique ba pare laata ma dem assemblée nationale ku si nekk di ma yi bés bu ne ma jàkkaarloog yow waxtaan